dinay faral dégg ci sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si yàlla yàlla dolli ko muy wax naan lu amul signature baaxul man sama kàddu yi nag kàddu yi signature la donc waaye li ngeen fi wax wax ko ci tubaab wax ko ci olof kenn mënut wax lu bari sunu xol sedd na guy ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaan nga jotti li ñu sunu sant ak sunu ngërëm ci président de la république El Hadji Macky Sall ak premier ministre ak ministre de l'intérieur ak ministre yëpp ak assemblée nationale parce que loolu lépp bàyyiwuñu kenn ndax lii day wane ni xam na ni Sénégal moo leen jaboote lu xew mu nga ca lépp di defar dafa fekk nag li gën a jafe la ko yàlla tombeel muy lan muy redressement ku ne xamante ni redressement ak ak séddale ku ne xam na ni yow waaye nag yàlla mi ko koo fal teg ko fi yàlla na ko yàlla jàppale bu mu bañ ci am benn miti miti wa in wa in yansurkumullah fala xaaliba la yàlla ne su ma la tegee loxo ku teggi loxoom bu ko faale da ngay dem da ngay dem da dem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 baa tund bi yëpp du tànqam lu kenn defe naa sax du yem rek sax ci circonscription lu xew mu jóg ku dem Pire wax ko sa soxla am na gàmm yoo xam ne mën nga yónni sa collaborateur mais day jógal boppam rawatina monsieur le préfet bi mu ñëweek léegi taxaw taxawaayu kilifa ñëpp xam na ni département Tivaouane am na spécificité wala ma lay xamal ne population yi wax nañu xam nañu ni ñoom sa collaborateurs yi xam nañu euh, dimension département bi di la gërëm yow tamit parce que sa taxawaay ci réew mi ak fi nga jaar yépp ba sa collaborateurs yi ñu bëri wax ko fi tey ma xam ko aussi parce que ci réew mi lañu bokk gis sëriñ bi di ko wax toujours sëñ Mansour dëggal ko léegi ci sa njàmbaar sa ngóora ak surtout sa xam mission bi nga xam ni da nga ko gàddu ndax xam sa mission am yéene dox ko ba pare di ko def ni nga ko war a defee loolu ku yàlla li moo ko mën kon ñu ngi lay ñaanal di la gërëm te suñu xel gën a dal parce que lépp gën na yomb bi nga xamee ne ñëw ngi fi yàlla def dajale la préfet ay sous-préfet ay directeurs centraux yoo xam ne mel ni yàlla daf leen natt pour ngeen dajawaat parce que liggéeyeen ngeen faneen ba xamante loolu aussi bokk na ci ay tegtal yoo xam ne koo gis xam ne yàlla mi ngi lay jàppale te du ñun ñu ngi ciy kontaan di gërëm sëñ Mansour ci turu sëriñ bi ak turu dëkk bi yëpp ak ci comité d'organisation pour seen taxawaay ak seen Pastef dëkk yu wër Pire yëpp parce que barki démb bi ñuy bale dëkk bi fekk na ay dëj ak xew-xew yu bëri am xel xom Daaru Musti 60 villages yi ñoo mobilisé woo ak waa Tivaouane ñëw jàppale dëkk bi ba gisuñu absence su kenn loolu wane na ni gàmmu gi du gàmmu waa rek gàmmu Sénégal la gàmmu tund wi la gàmmu ñëpp la te loolu donc ñu ngi leen ciy gërëm di gërëm chef de service yëpp comme ni ñu ko waxee ñoom aussi suñu dëkkandoo lañu comme gendarmerie Sénélec SDE ak ñëpp ku lim da ngay juum luñ ci des nañ ma baal mais xam nañ leen ñoom ñëpp niveau bi nga xam ne nii àggale nañ fi liggéey bi nga ñu nga wax ko léegi ak préfet muy le président ak premier ministre. ak ministre de l' intérieur digle woon romb nañ ko ba nga xam ne nii gàmmu ren wóor nañ ni ci organisation ak moyens yi gouvernement dégagé dina romb li nga xam ni moom lañ daan def ak mu ne te am nañ conviction ko du fi yam parce que projet yi nga xam ne président am na ambition pour delloo dëkk yi diine yi seen seen gëdd mu feeñ ci Promoville mu feeñ ci euh, kii résidence seconde résidence pour les autres yi muy def mu feeñ aussi ci yeneen infrastructure yoo xam ne mi ngi koy def te ñu xam ne fàttewu ci Pire parce que wàllu Pire mi ngi ñëw loolu yëpp buñ ko boolee dañ lay ñaan nga santal ñu leen vraiment gërëmal ñoon yàlla jàppale leen ba fi ñu bëgg a àggale réew mi ñu àggale ko fa li ci des ñu invité ñëpp rek waa tund wi dëkk yu ñu wër suñu mbokki jullit yeeg mbokki chrétien yëpp parce que Pire dëkku diine la dëkku l'islam la dëkk bu ubbeeku la ñëpp ñëw ñu àndandoo def niñ ko daan defee def gàmmu gu rafet gàmmu gu neex di ñaan suñu sëriñ bi yàlla yàggal ko fii ci sunu kanam yokk wéram asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mooy réunion bi si kaddu yi nga xam ne moom laa fi rotal kàddu yooyu mooy euh, kaddu ngërëm ak cant ki nga xam ne euh, mooy xalifu Pire mooy sëñ Moustapha Cissé di ñaan yàlla may ko wér te bàyyi ko si kanamu njaboot gi lu yàgg di nuyu njabootam yi fi teew yëpp Euh, ki nga xam ne moo leen jiitee mooy sëñ Mansour euh, di ko wax tam euh, di nuyu ki nga xam ne mooy maire Pire ak l'honorable député bi nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Diouf ñoom ñëpp ñu ñëw fii fekkee CRD fekkee ko ak mbooleem chef de service fekke ko ak mbooleem noppat notable Pire fekkee ko mbooleem njabootu Pire yi nga xam ne wax naa ko sànq muy si njabootu deret wala si njabootu pas-pas ñoom ñëw fii réunion bi lu mu gudd gudd kenn si ñoom bougé wu ñu remarqué si ñoo xam ne sax ay kilifa yu lëkkaloo kër gi la ku mel ni président Croix Rouge nga xam ne mag la waaye mu ngi toog fii bi tam réunion bi tàmbalee ba léegi donc loolu yëpp mooy wane ne que ñëpp lëkkaloo nañu ànd bëgg am benn bëgg-bëgg mooy li nga xam ne daf yàgg muy gàmmu Pire euh, ren édition bi nga xam ne moom lañ dëgmal euh, du yées édition yu wees yàlla na si yàlla musal li ñu bëgg kay mooy. édision bu ñëw rek eh, gën a am organi gën a organiser wu organiser édition bi passé loolu mooy bëgg-bëgg sëriñ bi waaye mooy bëgg-bëgg bi nga xamante ne moom la ñu jël si monsieur le président bi Macky Sall jël ko si premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne jël ko si ministre intérieur Abdoulaye Daouda Diallo bi nga xam ne bi may ñëw ànd ak chef de service daf ñu ne nañu fexe ba réunion d'évaluation bi bu ñu bàyyi dara point boo xam ne jàpp nañ ne lu jafe la nañ ko ko yëgal ñoom ñoom seen bopp ñu jël si matukaay yi si war ndax gàmmu Pire Pire dafa nekk bërëb bu yàgg wolof day naan lu yàgg dëgg la waaye Pire dafa nekk njabootu ñëpp ku njabootu ñëpp nag boo xewlee ñëpp si war a téye ku nekk dugal si loxo ba ñu yëg ko loolu président de la République santaane te ci loolu la ñu taxawee incha allah euh, wax nañ nag li ñu fi déglu bi nga xam ne càmbar nañ ko yàkkamti wuñ ko déglu nañ ko ne bàyyi comité bu mu wax ñeneen chef service wax ñu xoolaat biñ ko càmbaree ba fi ñu toll nii jàppale en tout cas li ñu dal li ñu dégg dal na suñu xel si wàllu wér-gu-yaram li docteur bi wax ak mboolem ñu service de santé yi dal na suñu xel si wàllu sécurité li nga xam ne moom la gendarmerie wax dal na suñu xel si wàllu ndox mi ak courant bi ak Sonatel li ñu wax dal na suñu xel waaye si wàllu ndox mi rek la ñu wax ne nañu fexe ba ñu baral li nga xam ne mooy mbiru raccordement yi yi desoon si daaw ñu fexe ba mottali ko yu bees yi ñëw ñu fexe ba yokk te ñu sóoraale nag que Pire nag léegi dafa nekk mën naa wax dëkk boo xam ne dafa toog bu mu yàgg rek seex faf ndax euh, li nga xam ne mooy Mbar Diop ak Mbar Ndiaye dañoo ñëw yokku si ak yeneen dëkk yi nga xam ne dañu ko ñëw gën a jege si loolu yëpp nag bu yokkoo loolu dafay laaj un traitement bu bees ba tax euh, li kilifa wax fii mooy dañu bëgg à partir de déwén incha allah ñu toog xoolaat même le cahier des charges pour le Gamou de Pire ndax defe naa ne jot na nag comme Pire dafa léegi nag ak conurbation am yeneen dëkk yu lëkkaloog moom. nekkatul gàmmu Pire kese ni mu tëdd woon démb ak barke démb dafay nekk beneen façon melokaan ak beneen façon tërlin boo xam ne il faut ñu sóoraale si ñi nga xam ne ñoo si dëkkandoo Pire pour que parce que sëriñ tam bëggul moom rek mu dem ñeen ñi des gannaaw donc loolu il faut ñu sóoraale ko li nga xam ne tam euh, beneen point bi nga xam ne xaw nañ si amee lënt waaye directeur général ONAS wax nañu ko mooy li nga xam ne mooy camions yi ak toilettes mobiles bi lu am solo la. ndax dëkk yi ni ko sëñ bi waxee dëkk yi dañoo nekk ay dëkk waaye amagu amatuñu àll comme amatuñu àll nag li ñuy def si dëkk yi dañ ko def si dëkk yi def si àll ñu koy def si dëkk yi donc il faut ñu jàppale leen si loolu ba tax na loo nombre de toilettes mobiles euh, sëñ bi nee na kontaan bu baax si vidoires yi ñu yokk waaye doon na ko gënal tam bu ñu defee effort bu baax si li nga xam ne mooy euh, nombre de camions vidange yi ak nombre de toilettes mobiles yi ñu yokk ko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 bu ñu yegg si gàmmu gi fekk lépp jàppandi loolu nag amul si benn xel ñaar ndax ñun jëleen suñu matukaay waaye surtout nag ñu ngi gànnaayoo li nga xam ne mooy ñaanu waa kër gi mooy ñaanu Pire ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi si ronu sëñ Moustapha Cissé di ñaan yàlla bàyyi ko suñu kanam lu yàgg loolu mooy li nga xam ne sëñ bi bëggoon naa ko di ko wax si suma turu bopp am mbégte bu baax ànd di ay chef de service yoo xam ne ñii say njaboot lañu ñii say goro lañu ñii say doom lañu ñii say waay lañu ñoom ñëpp ñu ànd ànd ak man bi ñu ñëwee ñu ñëw indaale yéene bi nga xam ne mooy bu ministre intérieur nga xam ne moo ñu fi feebal indaale yéene bi nga xam ne mooy premier ministre Mahammed Ben Abdoulaye Dionne ànd ak indi li nga xam ne mooy cantaane président la bi Macky Sall waaye ñu ànd ak préfet ak sous-préfet nga xam ne ñoom tam ñoo ñu fi toogal te bés bu nekk bés ni ki tey mën naa wax ne ba bés bu ñuy jot ñoom ñooy suñuy sàmm fii pour xool ne ndax li ñu wax dañ ko def ñu ñu sàmmante ak moom ndax mu am loolu nag dafa tolloo ak méngoo ak daraja bi nga xam ne piir am na ko lu ñu fi defal Pire kenn du wax jomb na ko kenn du wax waru fi am ndax lu yàgg dëgg la Pire lu yàgg la moom meññ lu bëri nekk premier université islamique si diwaan bi yëpp si diwaanu Afrique sowu jant donc bu fekkee ne am na xew bu am bu toll nii sëñ Moustapha si bi ko jiitee nekk doomu réew mi eh, taxawal réew mi fu ne eh, ni ma koy waxee di ko tooñ ba ma koy wax ne jom ngay naan di son excellence di son éminence son excellence en tant que ancien ambassadeur toogal réew mi son liminance en tant que xalif de Pire donc loolu yëpp mu jàppale ñaar yëpp mu téye ko benn bu si nekk mu téye ko ni mu gën gën gaa rafete bu xew ne di si def suñu képp ci kattan ba incha allah xew bi yegg si ñu yegg si si jàpp loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jox kàddu gi sëriñ bi pour nga rootal say kàddu ci defal ñu ñaan